ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2015 cour bu répression de l'enrichissement illicite ñu gën koo xam ci CREI yi daal di daan ki nga xam ne nag moom moo di Karim Meïssa Wade doom ci ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiit bu réew bu Sénégal moom président Abdoulaye Wade daal di ciy dolli aw amande bu tollu ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci milliards ci suñu ay koppar moom moomee nag ñu ko doon topp lépp lu ñeel wàllu luubal ci tollu ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñetti millions ci euro di ko toppee ci li nga xam ne nag moom la ñu ko dénkoon ci jamono yi nga xam ne nag nekkoon na conseiller ba noppi daal di nekk ministre ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 1985 génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di El Hadji Momar Marème Diop grand sëriñ de Dakar moom moomee nag ki ko wuutu di El Hadji Bassirou Diagne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2005 aw explosion ca raffinerie bépp mu nekk ñetteel bi raffinerie bi gën a mag ca réew bu États-Unis rawatina Texas City lu toll ci fukk ak juróom ci ay doomi aadama daal ci ñàkk seen bakken ëpp nañ téeméeri tam ñoo xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu. ñu taxaw ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2020 ci jamono yi nga xam ne nag njiit bu réew bu Sénégal daal nay décrété li nga xam ne moom moo di état d'urgence sanitaire doore ko minuit bu jotee fépp ci réew mi nag ñu daal amal li nga xam ne nag moom moo di couvre-feu teg ci huit heures bu jotee jëm six heures du matin ci jamono yi nga xam ne nag Covid 19 daal dinay gën a tar fii ci réew bu Sénégal docteur Cheikh Gueye responsable bu veille ak itam prospective ci IPAR moom mi daal di coordonner l'ouvrage Sénégal post Covid 19 souveraineté ak itam rupture di ñu jàngatal li nga xam ne moom moo di couvre-feu ak njeexital yi nga xam ne rek daal na koy am. couvre li nga xamee ni moom la jur ci nit ñi mooy euh, li ñu toog dematuñu fenn ñu bari ci euh, ñi doon yëngatu ci dëkk bi mënatuñoo dem mënatuñoo ñëw euh, ñi nga xamee ni ñooy baykat yi fekkoon na ñu bay ba noppi ñu si bari nekkoon ci période jaay mënatuñoo jaay produit yu bari produit maraîcher yi notamment des ci àll bi yàqu ñi nga xamee ni tamit dañ doon jaay ci mbedd yi ak ñoo ñu am jafe-jafe yu bëree bëri donc loolu euh, aussi euh, dolleeku ci euh, ñu gis suñu bopp xam ne comme ci àdduna bi dem ak dikk bi gën na jafe suñu souveraineté alimentaire vraiment nekk na lu lu lu am jafe-jafe. li nga xam ni daal moom lañ ci mën a jàngat mooy réew mi nekk na réew mu bari jafe-jafe.